إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dénk sunu bopp di dénk mbooleem jaame yàlla yi nga xam ne nangu nañu ku dénkante ak ñoom ñu gën a fab suñuy tànk teg ko ci taqwallah mooy sax ci ndigali suñu boroom yi te bàyyi ay tereem suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne ab dëkk ngi nii ba mu koy wax dëkk boobee la joxañoon waaye fu aw jullit nekk ña nga ca biir dëkk ba mu ne ab dëkk ngi nii boo xam ne su ñëpp maase woon gëm yàlla te teg seen tànk ci taqwallah yàlla dana leen ubbil barke ak lu barkeel mu jóge ci asamaan si ak biir suuf si walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard waaye nee na nit ki amee taqwallaa te gëmut ne bis penc ngi ñëw bis penc nit dana ko weddi ba noppi tuddloo ab jullit mooy koo xam ne lu ko neex def nee na bis la boo xam ne da gis gone gu ndaw gu be jaaw ndax ci asamaan si di xottiku ku ne xam na fanaan cib néeg muy taw muy senn ndox mi yuyuri ci kawam asama nañ ko tuddee woon ca jamono yooye mooy boo toogee cib néeg téeg ga ngay gis sama ul ñoom lay jox misaal ci ne da ngay gis ni sa ne bi xoti ko muy sen ngelaw li di ci dugg so tafé fi fé xoti ko wat nee bi bisi ngi ñëw asamaan si dana la def adduna ji tukki te neena yàlla kat lu mu digee dana ko def kon mbokk kum agsi ci yow bu fekke sab xol ngay dund bu la fàttalee gaawal na ciow ca yoon wa fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiba السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا <clears throat> لين بغى فاتلنت موي لو باركال لو باركال بوكي بو جنت فنك باتاك توتي يون وو جار داغي غيس راج راج لوبا

su waxtu wàcc jotee fépp feesati ku ne bëgg a dellu fa mu jóge woon mel ni daal kër kër ji bari na waaye dangay gis ne saa su ne dañuy gën a bëgg lañ doon wut te lañ cay am di néew lool ñenn ñi sax duñ ca am dara far loolu nag la ko waral mooy lu bari ci yëngutu ba daa barkeelut dafa barkeelut ñàkk barke dana dal nit ci waxtoom waxtu woo xam ne xool na xool jëlewu ca dara dem na ci neen danga gis koo xam ne alalam da dul barkeel dañ ko naan loxo bu bënn nga yore day def ni nit ñi di liggéey di wàcc waaye li nit ñi man du ko man ndax lam yor daa barkeelul waaye da gis koo xam ne it ci ak njabootam da ko cay dal da ciy am ñoo xam ne dañoo barkeelut ci suñuy wax yi démb sax wax nañ ko nee nañ ñàkk am doom bokkut ak yara dal ñàkk am doom wala jur muy dee du yara dal yara dal bokk na ca jur mu ne léegi te mënut dara mooy ñakk barkeel waaye nit it dana mënub liggéeyam lool nit ñi di ko wër ku ne bëgg mu liggéeyal la te du ca man dara daa barkeelul lay waral lu mu am ñàkk ko mu di ko dal ci njaboot di ko dal ci alalam di ko dal ci liggéeyam barke da ca nekkut yàlla nañu ci yàlla musal kenn ku nekk mën naa laaj boppam bu fekkee barke am na jaamu yàlla gi muy def lu koy xamal ne barkeel la la koy xamal ne barkeel na bokk na ca bis bu set mu di see gën a sawar su fekkee bis bu set fa mu yemoon da da koy bëgg a romb ak jaamu yàlla ma ngay barkeel waaye koo xam ne daal lànk kandaare cig jaamu yàlla na xam ne la muy def tuddi ko jaamu yàlla du barkeel day mel ne moom kenn muy gas fukk di suul pën dafay bari waaye du du am pax yaa duñ ca lu musal waaye kenn ku nekk war naa laaj ay waxtoom lam ca gis ne barkeel na ca mooy bu xoolee ginnaawam xool ne waxtu yépp lu ci lu ci jàll rek def na ci la ma si man ci lu baax te bañ koo teg ci ak tànnam bis ya noona weer ya noona ak at yi noonu danga gis duggum at ba at ma jàll du xam lu mu ca def ci lu baax yal nañu ci yàlla musal waaye kenn ku nekk it su tiimatee ndab wala mu yor lu mu jënd di ko lekk it na xool ba xam moom li muy lekk mi ngi barkee waaw wala déet xeetu lekk wane nit dana ko lekk te du tee ni suuti mu tàmbali waate xiif mooy la muy lekk lekk ga daa barkeelut ndax lekk ndax biir du mooy su mooy fees ñu ne suur na waaye am xel mooy dal rawatina nag la muy lekk mu xam fu mu ko jële waaye li ñu daan wax tarbiya bu njëkk it warees naa seetaat ba xam mi ngi meññ waaw wala déet yi meññ te amul njëriñ bari na de këti jantaa ba day meññ gàcc ak i dégam na sañ mel na meloon daaw waaye ku ko laal xam daa barkeelut <coughs> kon bokk ku ne war naa xoolaat ba xam tërbiya mi ngi jur njariñ waaw walla déet mooy lan tërbiya mooy tàggat nit ki làggal ko ci jaamu yàlla ak def lu baax fexe ba su fekkee yaa nga ca woon nga def ko nii nga mel lalay xamal ne barkeel na nag mooy kala ca jaarale woon dutoo ko fàtte ci sa dund ndax saa su ne nga xool lam la doon def la ca doon niru lu metti lépp njariñam yaa ngi koy gis léegi barkeel na waaye wares naa xool tam suñu alal lu ko tee barkeel junj naa ko léegi mooy wut rek mel ne ku yor ab raduta ay gëtam neexut day xëcc rek muy ñëw mu ñëwee baax na muy rocc garab nu ram rocc ko way lay léeg nag nit rocc garab go xam gi day yendo sekki nit ñi yendu sekki le waaye leg leg nga gis ko xam ne day liggey ñu do fay wer léeg leg war na xol ba xam limi liggey mi ngi barkel wa wala de dañ koy fay lo xam kuñ ko wax loxo dem ndax bari waaye su amé ñetti fan mu tambalé demal ci biti guddi mu jox ma nangam demal ci diw mu alma ba daa barkeelul waaye nag bi ma a taxaw dëgg mooy suñ dund yi ba xam ba xam barke am na ca waaw wala déet da gis ñun ko dund juróom fukki at kii juróom benn fukk kii juróom ñaar fukk kii juróom ñett fukk yu teg waaye bis bu faatoo lii gën a jafe mooy xool lenn lu mu fi sottal ci kaw suuf si lu amal nit ñi njariñ lu amal diine ji njariñ lu amal xeet we njariñ dara googu dund barkeelut bokk yi dund ko barkeel bokkut ak at yu bari mu bàyyi fi alal ju bari ñu bari séddoo ko ku ne am ca lu bari déedéet loolu alal la waaye du barke du alal ju barkeel alal rek la waaye li tudd barke dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne ay atam bëriwut waaye ba fi ne ñu ngi koy waxtaane ndax njariñ ñu lu mu amaloon euh, diina ji amal ko réew mi amal ko xeet danaa jële fu sori doon a indi fu jege bu ñu demee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma yonent bi ci boppam waaye ña àndoon ak moom doy nañuy misaal am na ku ñuy wax jaafar ibnu abi taalib fukki at ak benn def na ko Afrique euh, lu ak wuute am am ci xabasa mooy fan ci Afrique ñi ne mooy Éthiopie yi xew léegi ñenn ñi mooy Érythréa gi dagge ci Éthiopie waaye suufu Afrique la nekkoon moo tax Afrique ku ci bokk war ngaa yëg sa bopp xam sa bopp xam ne ba lislaam demee ba ne ciy tànk tànk fa la xel dem ndax ba fa yonent bi di yeble dane buur a nga fa bopp kenn du tooñ kenn ca kanamam jox nañ ko cir tey ku ñëw mu fat la Afrique lañ jëm si woon Jaafar moomu def na fi def na Afrique fukki at ak benn ca atum juróom ñaareel ba ca gàddaay ga ca la soog a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa Madina Jaafar moomu nu mu def bañ di ko fàttali ko ba tey jii gënu fee gudd fan ci ay at waaye ba yonent bi yab la ci ab xare jiital ku ñuy wax Zayd ibnu Haaris Haarisata dane su mën a tut nañ ko jox Jaafar kon Zayd cig déggam xamoon na ne du dellusiwaat toftal ko ca moom ba yàlla dogalee ca moom lam dogal Jaafar sës fa jël raaya wax jiite xare bi waaye tax ñu di ko fàttaliku ba léegi si laata muy wujj suñu boroom ca xare boobee dañoo dog yaar yooyu xoom yépp dagg nañu loxoom ndey jooram ba mu yore woon raay mu teg ko ci loxob càmmooy bi taxul mu dagg loxob càmmooy ba mu kepp ko ba ba muy keneen këfa drapeau kooku di ko waxtaanee du defee jaaroon rek dem waaye dafay jëf loo xam ne bisub kero ba léegi ci kenn du ko fàtte dund ko barke la nga noonee moo ne ku ñuy wax Ali ibn Abi Talib mi mbokkal benn bàyyi itam day ba yonent bi gàddaay moom la indi néegam ne ko nekk ma fi jox ko mboolem lañ ko dénk ko ne demal jox diw joxal joxal diw joxal diw bañ ko yootee ba war koo jam dañoo xool ne du moom kat waaye loolu lu ñu ci bëgg a mooy ak dundam xajoon na ca loolu mooy dund ko barkeel waaye usaamatu bnu zeyd jiite woon na ab xare jërul may wax ñaata at la amoon ab armée ne ca digg ba jiitu di joxe ay ndigal waaye at yam amoon ñu bari ñun jur nañ doom yu yu ko mag ñu bari ñun jur nañ doom yoo xam ne ëppale nañ at yooyee moo ne samra wala sumratu ibnu jantab ak rafi ibnu xadiij ñoom ñaar ñooñu ñoo rey Aba ñoom ñaar ñooñu seeni atit ku ne si ñun jur na doom yu leen mag du seen at ya waaye seen pas-pas bala ak seen dundu googu nar gaa barkeel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa suñ masaan sas fas ab sëy bi nga xam ne ci la jullit yi juddoo daana daana sa ñaan sëy bu barkeel naan baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa baynakuma fi xayr moom la mag ñi daan jël sax naan dégg na alxayr yi yonent bi da ko ca da daan ñaan ne yàlla na yàlla barkeel sëy bi sëñ bu mag bi bi mu koy leeral daf daan wax ne moom yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ci mooy barkeel Anas ibnu Malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na koo wax ne ko foo demati ba dikk bul romb sa waa kër te nuyu woo bu dee suñu nuyoo ñun ci suñu suñuy aada ginnaaw asalaamaaleykum mooy nangam ku ne nga jàccew santam ndax nee na ko di nuyu sa waa kër day barkeel ab ànd sa digganteeg sa waa kër mooy na ñun de ci suñuy biir am na ci ñoo xam ne duñ nuyoonteeg ñu leen gën a jege ci bokk kon ñooñu seen dund barkeelut dañuy lekk ak dem ak dikk dong waaye dund gu barkeelat la ñuy dund te xamuñu lool su ma waxee sëy boobu nag yonent bi daanaka ñaan barke sëñ bu mag bi tënk ko ne yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ca dañ ko daan waajal dañ ko daan waajal dawuñ ko def rek. nii lenn ki suñ mbokki africain yi di def ca ay jamono bu yàggoon danga gis koo xam ne day ubbi ab restaurant cin la muy togge di jaay nit ñi yàpp yépp la say togg yàpp yépp yàpp xar dana ca nekk soo ne ko xar mu génneel la yàpp nag nekk ca soo ne ko xa nag mu génneel la yàpp mbaam xooxu nekk ca soo ko nee génneel ma mu génneel la ko waaye ñoom ñëpp ñoo bokk cin li ñooy bokk di bax yàpp yàpp la waaye yàpp nag bokkuñu nit ñëw na ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daa bëgg mu yeddal ko doom ji ndax ab yar moom dara yonent bi ne ko doom nga wax walla kan mu ne ko doom mu ne ko anam mu ne ko mi ngi nii mu ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko yar ko weesu na mu ne ko gone gu ndaw la di gone gu ndaw mu ne ko yar ko weesu na xanaa daa xamutoon kam doon waxal waaye koo xam ne wa maa yantiqu anil hawaa du juum mu ne ko lu tax nga ne ma yar ko daa weesu mu ne ko da ko waroon tànnal ka ko jur ba noppi fa nga fa mu weesoo mooy tànnaloo ku koy jur kon boog nañuy dimbale suñu njaboot di leen tànnal ka leen di jur ndax yàlla mu barkeel dugg ci ñaan googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan euh, da gis mango goo xam ne wala dimb koo xam ne ci garab yi ñuy jëfandikoo rek te kenn moomu ko danga gis ku ñëw ba agsi ca lu kenn moomu sax amul ci loxoy kenn daan daa sax ci àll bi noonu rek moom la suñu borom di wax ne wa huwa alladi ansha jannatin maarusatin wa gayra maarusat waaye dangay gis ne mango gi léeg leen gis ñu bokk genn garab gi bokk benn ndatt bi bokk benn but bi tóor tóor moom mango nga koy defandoo waaye danga ci gis doom yoo xam ne day ñor xomm nit ñi di ko jëkkante ndax bëgg ko am ci doom yoo xam ne kenn du ko laal ndax ñurut am na ñu dëgër bopp di lekk màngo bu ñurut waaye ñi xam yaramu nit dañ koy tere gënut ci nit Lama ci bëgg wax rek moy lu barkel señ bu mag bi nit neena ko dama bëgg nga ñaanal am soxna am ca dom ju barkel ba nopi man ci sama buma bu ma dem aljanna señ bu mag bi ne ko yi nga wax yépp yar rek la sonu subax ak dom ju barkel ak dem aljanna sonu subax ak dom ju barkel ñoo and kon dem aljana ak soxna subaa rek ngay ñaan sëñ bi bindoon na ko ci ab téeréem wa zawjatan saalihatan tuiinu ala tuqaa wal birri yaa muiinu ne ko soxna su baax soo ko bëggee da ngay seet koo xam ne war ngeen a ànd te a ànd nga laaj ba yëfi kenn nekku ca nga def ca sa yëf soo ko ci defee yàlla mën na la ko caa mën na la caa jox doom néewu ko dana la dana la ko ci def doom yàlla koy joxe mën na la ko caa jox dee dem na nag li koy maye yàlla wax ne ko ci alxuraan dangay jariñ nit ñi te bañ leen caa jéppi ne ko ñi ngay jariñ ñaar lañ kii day ñaan nga yàgg fi yàgg koo jariñ kese moom sa gudd fan njariñ li nga koy jariñ dong la ca soxla kenn ki day am jom nara barkel ci dundam muy ñaan nga yagg fi ba man la fay mom bala ngaa faatu nee na bu faatu ñewé ñaar ñe yow bu fa dajé ku ya ku talal loxone yalla yalla nga ki yalla man la bu nangu ak ñaanam su fekke bari nañ ne ko amal len jariñ te bañ len caa jëppi xam nga numuy démé mu ne ko xamaguma ko mu ne ko mas nga gis guyaab garab yam tuddoon yu ñuy lekk la mooy guyaab màngo xaasew wala yiñ xam suñu jamono tañ di ko lekk ñee ko ndax mas nga gis ku gor ak màngo di ko def ab gayat néegum ñax boo xam ne garab euh, banti màngo lañ dagg daaje ko néeg mu ne ko mosuma ko gis mu ne ko njariñ lam am moo tax ak barkeel gam barkeel moo tax bu juddoo rek ba tàmbalee ami xob rek dañ koy aar koo gis dañ koy aar ndax barkeel ga ca kanam a tax kon mbokk amal nit ñi njariñ moo gën ñàkkal leen njariñ waaye lay tax nit ñi mën a amal nit ñi njariñ it mooy dund gu barkeel koo xam ne dundam gépp lu mu cay def yàlla rek a tax mu di ko def koo xam ne buy jóg yàllaay tax buy toog yàllaay tax koko bokk yi bu fu amut at ju bari it saa bu fi joge kenn du ko fàtte ñi ngi fàttaliku soxna jaara ñun ñëpp ñoko mag ñi ko mag ci bu ñëkëti won seen loxo juma jëpp kenn du des fanweeri at ak yàtt la ko gëna sori tout sayyida Isa alayhi salam at yu tonon la amon ci ñu gëna a siiw la bokk waye sallallahu alayhi wa sallam ñi ko mag ci dak ci juma ji bari nañ ba dem su dul woon ak yan bu diis bi mën naa bañ a tàmbalee ba jaawagul waaye ba muy woote naan yaa ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamian boobu ñun ñépp ñoo ko mag kon yëfi du ay at waaye dund ko barkeel ci lu mu fiy bàyyi ëllëg lay doon maam Cerno bi ko siñ bu mag bi di dénk njaboot gi ñun ñépp ñoo ko mag te moom ku ci dul maam Mor mën na laa fete kaw ci at waaye noonu def ba fi la ñu ngi koy nett di ko waxtaane dundam nga moo barkeel am na ñu tasee doon jamono ñoom ka doon kalaame si sëñ bu mag bi ñëw na ko dañ ma laa wooloo te suñ Fallu Mbàkke nettali ko wóor na wóor yàlla ak njabootam a ngi dund ndax yàgg gut waaye ana fu ñu leen di waxtaanee ak lu ñuy waxtaane si ñoom dund kooku moo barkeelu ñoom nag yàlla mën na leen caa musal ndax ni ma ko waxee léegi suñu borom a wax ci alxuraan ne yuxrijul xayya min al mayyiti yulu yulee la naxaar nahaar yulu yulee la fi nahaar mooy màngo dana jur suukar lañ ko xamee ak xonq waaye dana wex xat te fekk màngo koy ko jur ñooñu yàlla na yàlla wàññi seen seenu njaboot bañ bokk ci ñi gën ci nit ñi ndax jamono fa toll woon rek waaye la ma ca bëgg a waxtaane mooy ña nga xam ne dañoo féete woon ak yàlla moom ba fii ni ñoom la ñuy waxtaane kenn du leen fàtte donte seeni at liw liw di dem waaye kenn du leen fàtte ndax musuñoo wax lu ñu leen di xoole musuñu ko def ci seeni yoxo musuñu ko def ci seeni tànk ndox jëm ca musuñu koo xool bañ di leen ca jéppi yàlla na yàlla defal dund ko barkeel te defal ko jullit yépp yaxfirullahu